maa ngi leen di gërëm bu baax ànd nañu ñu daal di wër euh, yenn rek euh, ci yenn place yi euh, ci biir Thiès fii ñu ne place bi mi ngi jàkkaarloo ak bureau maire de la ville de Thiès nee nañ barab bi xale yi lañ ko tuddee xale yi fi la ñuy féexloo mais yaakaar naa ni barab bi su ngeen ko xoolee mbëbës lay gën a nuru amul euh, karaange euh, benn amul ay toilettes ca pourtant maire Thiès bu yeewoo mi ngi jàkkaarloo ak euh, barab bi dem nañ Kajoor Glace dem nañ yeneen espace yi nga xamante ni ay nit ñoo ko occupé ci espace yooyu yëpp gis ngeen ni mu mel Thiès ñoo ko moom ak doomu Thiès ñoo ko ñoo ko moom am na loo xamante ni du dëgg du yoon am na loo xam ni xel nanguwu ko waa nag ñoom ñooy xool ba xam lu mel nii la ñu bëgg wala déet moo taxoon yéen ñi nga xamante ni ay bët di nopp waa Thiès ñi ngeen ñëw gisal seen bopp ngeen wan ko waa waaye man maire de la ville du lii laa bëgg ca li ko tàmbali tey dinañu jël ay mesures yoo xamante ni dinañu fexe nangu place yi delloo ko waa waa ndax ñëpp ko moom waa Thiès yëpp ko moom scandale Eh, écologique la ci boppam dëkk dafa am ay barab yoo xamante ni ñëpp ñoo ko moom mënuñu ko jël ñu privatiser ko teg ko ci ay ay loxo ay nit ñoom ñiy def ci seen gafaka di def seen i poos pendant ce temps population bi mënuñu am accès ci ci ci ci barab yooyu ca loolu rek moo feeñ ngeen gis salte bi ngeen gis ni ñu occupé mais su ngeen xamoon li nekk ci contrat yi ci boppam bañ wax leen li nekk ci contrat yi di ngeen xam ni jot na waa si yeew di ngeen xam ni jot na waa Thiès jóg loolu nag dama bëgg rek ngeen seede waaw ngeen seede waa Thiès yëpp seede xam ni lii àq waa Thiès dinañ ko défendre lii intérêt waa Thiès dinañ ko défendre barab yooyu dinañ ko jël ñi delloo ko waa Thiès ci boppam et ñi ngi ñaan population bi ñu jàppale ñu ci xeex bi ndax ay barab la yoo xamante ni mënuñu jël ñu bàyyi ko ak ay doomu aadama ñoom ñu continuer di enrichir pendant ce temps Thiessois yi gën a nekk ci ndóol gën nekk ci ay jafe-jafe amuñu benn espace vert loolu day na jeex incha allah fii ci Thiès moo taxoon ñu ñëwoon ànd ak euh, jataay bi merci nous avons fait le tour ensemble et vous avez vu à quoi ressemble votre ville à quoi ressemble notre ville derrière ici c'est une place importante qui est au cœur de Thiès, qui est le cœur de Thiès, qu'on appelle Mickey Land. Mickey Land, c'est la terre des Mickey, autrement dit, la terre des enfants. Mais je pense que cette place ressemble plus à une terre des ordures, à une terre de l'insécurité, à une terre du désordre, à une terre de la violence faite aux enfants. Pourtant, elle est euh, devant la mairie de ville. Quand le maire de Thiès se réveille et va au travail, il fait face à cette place. Mais l'état de cette place symbolise simplement euh, la situation environnementale de notre ville. Nous avons connu dans ce pays et dans cette ville des scandales euh, financiers, économiques, mais je pense que ce qui se passe au cœur de Thiès, Mikelène, Cajor Glace, l'occupation de l'espace, c'est un scandale écologique. C'est un dépotoir placé au cœur de Thiès qui empêche les Thiessois de respirer. On a confisqué l'espace public dans cette ville. Nous avons fait le tour et tous ces espaces visités appartiennent au Thiessois, appartiennent à la ville de Thiès, vous appartient mais c'est aux Thiessois de savoir ce qu'ils veulent. S'ils veulent une ville comme ça, s'ils veulent une terre dédiée aux enfants, qui est une terre de violence, des ordures, de, de, de, des ordures, ils verront ce qu'ils veulent. Mais en tant que maire de Thiès, je ne veux pas ça, moi. Évidemment, et nous allons restituer aux Thiessois donc, euh, ces espaces-là, les rendre démocratiques, accessible à tous les Thiessois. Dès aujourd'hui, je commencerai à prendre des mesures administratives euh, pour euh, récupérer euh, ces, ces espaces-là. Et d'abord pour protéger nos enfants, parce que désormais, je ne peux plus laisser ici des enfants de Thiès entrer ici. C'est d'abord un problème euh, mais Maintenant, ça, c'est simplement ce qui est visible. Mais si on vous dit ce qui est derrière ces contrats-là, et vous vous rendrez compte que c'est un scandale écologique, mais aussi c'est un scandale financier qui n'honore pas Thiès, qui n'honore pas les Thiessois. Ça, c'est une autre affaire. J'y reviendrai.